ñoo ngi remercier mbooleem responsable yi fi teew yépp comme nin ko waxee woon sànq ci suñuy kàddu su fekkoon ni dañuy mobiliser dañuy wax ni responsable bu nekk na xool zone ba mu nekk mu mobiliser fa ñëw mais évaluation bi ñin ci soxla woo mooy les têtes de file les responsables loolu moo waral ku ci nekk ñu gis mbooloo bi nii mu demee ñoo ngi remercier d'abord presse bi nga xamante ni ñoo fi ñëw teew di leen gërëm ci njiitalu sunu doyen Babacar Ndaw ginnaaw loolu ñoo ngi remercier bépp mouv bépp membre mouvement M3D muy mouvement dogu dëggu dëggal ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp ci élection yi nga xamante bi ni moom lañ jóge te jugee ci ak ndam lu kawe ci niñ ko mën a waxee ñoo ngi remercier aussi bépp responsable bu nekk Randoulène Nord ndax bu ñu waxee bépp responsable mouvement M3D loolu la région de Thiès lañ si tudd mais le Sénégal en général voire la diaspora ndax fu ci nekk rek ma mouvement M3D am na fa ay représentants waaye ñi ngi koy jeexalee ci gërëm bépp membre mouvement M3D bu nekk biir leen Nord wala bu nekk ci commune Thiès Ouest loolee suñ ci jiitalee Alioune Badra Diagne bu assemblée nationale nekk leen ci biir mel na ni tudd nañ ñëpp mais du ñu deñ aussi di ci tudd Serigne Fallou Niang nekk suñu représentant au niveau de grand standing voire Sofraco noonu lañ ciy tuddee aussi Pape Ndiaye peintre moom mi nga xamante ni moom moo jiite groupement yi nekk Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 Mbour 4 ak Somme di si jiital aussi responsable des femmes muy Aïda Faye coiffé Kër Massamba Gueye ak Randoulé Nord aussi dinañ ci tudd aussi Awa Diouf mu jiite groupement nekk SOM Seynabou Dieye aussi nekk responsable bu nekk Mbour 1 noonu lañ ci tuddee Oumy Ndiaye mi nga xamante bi moo yore groupement carrière ak dixième réamo di si tudd Ibrahima gay moo nga xam ne yàgg naa ko wax il fait partie des gens de l'ombre mais nekkee Sud Stade di ci tudd aussi aji Fall nekk sunu représente groupement bu nekk Bayal xujo Badiane noonu lañ ci tuddee bu Bousso mbay ak Omar Ngom mi nga xamante ne ni ñoom Amar ñoom ñoo nekk ay responsable au niveau de Jaxaaw noonu leen siy tuddee aussi cité woon nañu ko léegi Pam Ndiaye Pam Ndiaye jëlale naa Mbour 1 Mbour 2 bi mu nekk mais partout au niveau des trois zones fu ci nekk am na fa ay groupement yoo xamante ne ci M3D la nekk noonu leen siy tuddee aussi Fallou Matibra Diouf et notre frère Papa Ndiaye si seen taxawaay au niveau de Randoulène Nord Touba Thiès ñoom ak seeni responsable des femmes muy jaxu juuf ak koddu ak mbooleem jigéen ñi nga xamante bi ñoo nekk diggante njóobeen njuufeen cuuneen baydi ak ñangeen kon yéen aussi ñi ngi leen di remercier ñoo ngi remercier population Randoulène Nord gépp en général ndax lu tax ñuy wax ni ñoo ngi remercier population leen noor dañu nekkoon ci combat bu metti combat bi am luñ ci diggante woon ak le président sa Seck ndax ku ci nekk xam na ni Mouride Ndiaye tey jii bu nekkee Benno Bokk Yaakaar la ko fa dugal mooy le président Idrissa Seck président Idrissa Seck boobu moo tax ñu nekk Benno Bokk Yaakaar mais ñu am combat boo xamante bi ni moom lañ diglante woon ak moom mooy kat danañ ko jàppale ba rendu leen nord sunu borom tegaat ko ci loxoom. loolu mu nekkoon un grand défi pour nous donte nag kees gépp lu woon mais mu am luñ ci tàllaloon loxo ñu nit ñu tàllal ko loxo ñoo ngi profité waale ci occasion boobu di gërëm sunu xalifa di xalifa kër gi di sunu grand frère di Baye Mor teew na si jataay bi moo joxe ñaan gi noonu nu ko waxee bu remercier waa Randoulène Nord gépp mais remerciement boobu dañ siy jiital le président sa Seck ñoo ngi leen di ñaan ngeen tàccul nu le président sa Seck notre président qui n'a ménagé aucun effort pour que ñu amaat ndam au niveau de Randoulène Nord damay wax ni man Mouride Ndiaye suñ doon félicité ñi nga xamante bi ni ñoo am ndamal leen Nord damay wax ni nan ma ci génne man parce que su fekkoon ni Mouride Ndiaye kese la kon Randoulène Nord duñ fa am dam mukk mais derrière Mouride Ndiaye y a d'autres gens yu nga xamante bi ni danoo muyee seen mayoo ba tey jii ñu mën a am ndam loolu te ndam loolu le président Idrissa Seck moom moo si jiitu moom mi nga xamante bi ni bàyyiwul stratégie bàyyiwul nu mu nu accompagner ci moyen matériel bàyyiwul nu ñu accompagner ci moyen financier sur le plan technique amul benn effort rek boo xam ne président Idrissa Seck téye na ko pour que maanaam jotaat ndam li nga xamante bi ni mooy ndamal leen noor mooy ndamal école Malickère bi nga xam ne moo nekk sa base naturelle loolee dañ cee ànd ak le comité électoral bi nga xamante bi ni moom lañ fi tegoon moo tax ma ni suñ nee ndamal Malickère ndamal Murit Njaay la kon juum nan ndax daf ci am ñoo xam ne danoo nekkoon sur le terrain nii nu rayante woon ba mën a am ndam lii ñoom ñu def ko kon ñuy remercier comité électoral bi nga xamante bi ni notre frère François Fall moom moo ko jiite woon ak mbooleem jigéen ñi ci nekkoon ak bépp jeune ak xam na seen taxawaay ci porta port yi xam na seen taxawaay ba tey jii ñu mën a am résultat bu positif noonu nu gërëmee comité électoral bi noonu lañu gëm a gërëmee ASC yi nekk au niveau de Randoulène Nord gépp ndax kenn ci ñoom ku ci nekk bàyyiwul benn yoon ñoo àndandoo les porte à ñoo duggandoo ci nit ñi ñoo doon sensibiliser ba tey jii ñu am victoire bi nga xam ni moom la ñu am au niveau de Madi Kayra Diaw kon dañuy wax victoire bi victoire bu collective la loolee nag ñu ngi leen ci sant yéen ñëpp di lancer benn message boo xamante bi ni ñu ngi koy lancer bépp doomu Randoulène Nord ñu xam ni amuñu droit baisser les bras ndax tey jii dañuy wax ni dafa am bu doon tool ñu ni dafa am benn waar boo xam ni moom lañu ñu daggal waar boobu buñ ko bayee ba pare dañuy xool ni am na yeneen waar yu ñu dese yoo xamante bi ni war nañ koo bay ñun nag sunu engagement ak président Idrissa Seck yamul woon ci Randoulène Nord kese parce que ku ci nekk xam na ni élection yi passé ñun ñoo nekkoon candidat ci benn coalition au niveau de la commune de Thiès Ouest loolu permettre nañu quartier yi nekk Randoulène yi nekk zone ouest bi yëpp sillonné woon nan ko amoon nañu fa ay représentant loolu tax bi ñuy jàppale le président Idrissa Seck yamulu ko woon ci randu leen donte nag suñu bëgg-bëgg yëpp ñu ngi ko basé woon ci randu leen mais teewul responsable yi nga xam ne nekk nañ fi te nekkoon ci yeneen gox ñoom doon nañu def ay porte à porte doon nañ sensibiliser à leur niveau ba am na pôle ku ci nekk euh, fii si biir centre de vote yi am na pôle yu ñu fa installé woon pour responsable yooyu kon ñun suñu apport ci Benno Bokk Yaakaar wala suñu apport si maanaam le président Idrissa Seck yamale yamalewul ko woon Randoulène noor kese loolee aussi ñi ngi koy leeral ñëpp waaye nag ndam li ni ko waxee woon léegi xëy na sunu yaakaar ci ndam li mënoon na gën yaatu mais bu ñëpp defoon ni waa Mari Kayre def yaakaar naa ni kon Benno Bokk Yaakaar dana am ndam ci territoire Thiès bi yëpp kon gaalaama gàcce ngaalaama yéen waa Randoulène Nord gàcce ngaalaama yéen waa zone ouest ñuy ñëwaat tàllal loxo le président de la république Macky Sall ci mu gën a gestu ndaw yi waa Thiès ndax tey jii ku xool Thiès ak ni mu bindoo ak xool résultat yi li mu génne danga xam ni Thiès ak waa population bu Thiès bëgg nañ ay xar kanam yu bees yoo xamante ne ni ay ndaw la doon tey jii waa Thiès gépp tàllal nañ loxo ndaw ñi ndax gis nañ ni élection yi lii nu ci am leader yu ndaw yi nga xamante ne nekk nañ ci biir cees ñoom ñooñu ñoo wane seen pas-pas ñoo wane seen doole mais aussi wane nañ ni askan bi maanaam dawal cees la ñu gën a jox loxo kon président de la république ñoo ngi lay ñaan nga gestuwaat ndawal waa Thiès mais gën leen a responsabiliser ba tey jii li nu bëgg a def ñu def ko le président Macky Sall ñu ngi lay tàllalaat loxo pour nga gën a jàppale suñu président Idrissa Seck ndax tey jii la président Idrissa Seck ku ci nekk xam na ni mu wàccee sur le terrain tey jii ndam li nga xamante bi ni Mari Kaïra moo ko am dañuy leer ni moom wàcc gi mu wàccaat sur le terrain ñëw kat xam leen ni man maa fi maa fi nekkul woon moo tax tey jii kuy jël sama base jël sama base waaye bi ma teewee récupéré waat naa sama base te dara yënguwul te loolu mu récupéré base am àndut ak mu wàcc sur le terrain koo xam ni fa nga toog nga toog joxe ay directives récupéré waat sa base kon boo wàccee sur le terrain kon taxul ñuy wax kon le président Macky Sall ñu ngay tàllalaat loxo pour loo mën si jàppale président sa Seck mu jàppale ndawal Thiès loolee dana gën a tax ñu gën a am résultat au niveau de Thiès